kenn ku nekk xam na liy melokaanam moom jéggalaakoon la luñ ko mën di wax ak lu mu ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw benn tontu rek la am toppuma kenn dara toppuma kenn dara baat boobu mosu cee jóg waaye nag dafa am loo xam ne dinañ ko wax ci kanam mbooloo mi ñun sëriñ bi wax loowuñu ñu ñooy waxal suñu bopp te suñu responsabilité bopp lañ ci engagé engagé ñu ci ma sàmb engagé wu ñu ci ma demb sëriñ bi kilifaak ay jàmbur la kër sëriñ bi dafa am ñu mu njaboote ñun ñi nga xam ne nag sëriñ bi danoo njaboote dañoo jël suñuy responsabilité yu mat sëkk yoo xamante ni nii duñ ci dellu ginnaaw dañoo nekk ci dëkk muy dëkkub yoon am nu yoon tërale mënee suta bàyyi nag kenn di jëlati suñu kilifa di teg ci moom lu teguwut moom bu dee jéggale moom day jéggale moom day jéggale waaye ñun duñ jéggale lu leer la ñuy wax nëpp tuuma man Omar Diouf man nëpp tuuñu làqu suñu kàddu fu mu mën a yegg ak fu mu mën a joti ak fu waay nekk na ko dégg gis nga sëriñ bi dafa am ñu mu jaboote kenn ci ñun bu toogoon fii ñu jël waajuram bu góor teg ci moom ab safaan balaa suba mu lijjanti dañ waxante dëgg kenn ci ñun bu toogoon fii ñu jël waajuramu jigéen teg ci moom ab safaan balaa suba fu mu a jaar ba lijjanti ko dana ko lijjanti ñun nag sëriñ bi mooy suñu waajur mooy suñu waajur ci bu wér bàyyatuñu kenn nag muy jëlati ab safaan ak foo man di nekk bu dee njàng ëppooñu ko bu dee moyen technologique loo ci xam-xam nañu ko justice nag réewum justice lañ nekk li ñuy wax nag liñ ci kiñ ci njëkk a interpellé mooy le président de la république parce que moo yilif Sénégal ka ca topp mooy ministre de la justice ndax ci dëkku yoon lañ nekk mënuñu nag di seetaan ay nit di leen bay bayal ñu jël ay kilifa di teg ci seen ab der lu leen neex ba pare bu demee tëdd seen kër nelaw man nag sama kàddu fii ci mbooloo mi laa koy waxe sama deret jébbal naa ko sama borom bu yàgg te duma ci dellu ginnaaw loolu nag moom na leer ñépp nag na leer ñépp nag laa wax foofu rek la jox jërëjëf suñu rokkee taxanaa yow billahi wallahi wa taala dama doon bu dee man laa ko jëlee ak jaam su joxal man laa ko dama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh